Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, honorables collègues députés. Monsieur le Premier ministre, au moment où je prends la parole au nom du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, le groupe de la majorité qui a fini de faire ses preuves en faisant voter l'intégralité des budgets et ministères sectoriels et le budget du Sénégal, j'ai une pensée affectueuse pour un membre éminent de cette Assemblée qui a été agressé ici. Au moment où on parle et célèbre la République et la démocratie, elle est à l'hôpital principal depuis le 1er décembre 2020. je réitère au nom du groupe tout notre soutien et notre solidarité, en espérant que justice sera faite, dans le respect bien sûr ce qu'on appelle l'égalité des armes. Monsieur le Premier ministre, je vous ai déjà félicité, je vous encourage. Et je prie pour vous qu'Allah le Tout-Puissant vous accorde sa force pour que vous puissiez accomplir votre mission en très bonne santé, dans la paix et dans la stabilité qui caractérise notre peuple. Monsieur le Premier ministre, les chantiers sont énormes. Les défis à relever sont importants, complexes, multidimensionnels. Et vous connaissant, je sais que vous serez, vous et votre équipe. J'ai eu à le dire. Quand le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice ont fait leur passage ici, j'ai eu à dire que le Sénégal connaît actuellement des mutations au-delà des crises énergétiques, des crises alimentaires, des crises de toutes sortes. Connaît une ère nouvelle qui tend à rendre malade notre démocratie. est malade aujourd'hui de ses acteurs. je devrais dire de certains de ces acteurs, qui font dans la démagogie, dans la violence, dans le populisme, des hommes et des femmes mal préparés à assumer le legs de nos anciens, celui de Senghor, celui de celui de Abdoulaye celui de Macky Nous devons être dignes de notre peuple. Être dignes de notre peuple, c'est de la République. Être digne de notre peuple, c'est être un militant des valeurs de la République. Être digne de notre peuple, c'est être des militants de la démocratie et de la vraie démocratie. Les acteurs politiques, les vrais, ne sont pas obnubilés par les échéances électorales. Malheureusement, comme vous avez eu à le constater, chacun est revenu ici pour parler de troisième mandat, de deuxième mandat, de su fi amee dina fi amee du fi amee dina fi amee. Je dis que si tous nous sommes des croyants, nous devons croire à une chose, c'est Dieu qui donne le pouvoir, c'est Dieu qui prend le pouvoir, il donne à qui il veut, quand il veut, au moment il en décide. Monsieur le Premier ministre, pour revenir à ce qui nous concerne aujourd'hui, ce Sénégal d'espoir, ce Sénégal de progrès, ce Sénégal qui avance, le Sénégal qui fait la différence dans la sous-région, le Sénégal qui fait la fierté de l'Afrique, qui fait la fierté des Africains et qui fait la fierté des Sénégalais. J'ai parlé du plan Sénégal émergent. Nous sommes des militants du plan Sénégal émergent. Nous sommes des militants du président Macky Mais nous ne sommes pas des nihilistes. Nous ne sommes pas des fanatiques. Nous ne sommes pas des hommes qui repoussons la vérité Vous qui regardons la vérité avec le cœur, sans la avec les yeux, avec le sens et la responsabilité. Depuis que le plan Sénégal émergent a été mis en œuvre, quelques secteurs ont été rapidement impactés. Je prends l'exemple du transport aérien, un trafic international qui évolue avec une croissance de entre et des aéroports internationaux de classe mondiale, l'aéroport international Blaise Diagne, mais aussi la réhabilitation des aéroports secondaires pour construire ensemble notre hub aéroportuaire et logistique. Prenons l'exemple du Sénégal de progrès à travers l'éducation nationale. Plus de milliards investis dans ce secteur, 15 de classe construites, 500 écoles élémentaires construites, collèges, 50 la réception du déficit des enseignants, sans oublier le programme important des abris provisoires pour construire l'école de demain, l'école du futur, l'école de la qualité, l'école de l'éthique, l'école de l'excellence. Oui, je suis un militant du Sénégal du progrès. Le Sénégal qui construit sa santé, son système sanitaire, à travers neuf nouveaux hôpitaux depuis 2012, 18 centres de santé, 300 postes de santé, 21 centres de dialyse et des hôpitaux à travers l'élargissement de la carte sanitaire à Kafrine, Seyou, Kédougou et j'en passe. Je suis un militant du Sénégal du progrès, le Sénégal des infrastructures routières, 2526 km de route 189 km d'autoroute, 6500 de pistes 29 Mo, Marsassoum, Foundiougne, le pont Sénégambi et jean pipe Touba, Dara, Linguère, Fassi, Sokone, Kerwal Joal, Sambadia, Differ, sans oublier le désenclavement de l'île à et bientôt le programme spécial de développement qui va désenclaver le Dent ce territoire riche de potentialités rizicoles et agricoles. Le Sénégal d'aujourd'hui c'est le Sénégal de progrès c'est pas Sénégal bi nga xam ne xuloo xeex dóorante saaga yàq sunu démocratie ak yàq sunu image yu Sénégal moo ñu tax a jóg Sénégal bi ñu am ci 2014 ba léegi mooy Sénégal boo xam ne ndox fi mu manqué woon tey on est à 98 virgule 5 pour cent d'accès à l'eau potable au niveau du Sénégal presque presque dama ne oh, oh, objectif de développement durable Sénégal rempli na ko Sénégal bi ñu am tey mooy Sénégal bi nga xam ne électricité dafa jafe woon courant jafe tey ñu indi ay programme cent cinquante mille lampadaires indi électricité fépp ba nga xam ne tey le taux d' électrification urbain est autour de 67 pour cent le taux d' électrification rurale est autour de 52 pour cent Sénégal bi ñu bëgg mooy Sénégalu jàmm ak teranga mooy Sénégalu yar ak teggin mooy Sénégal boo xam ne dañuy jël république mettre ko au cœur de nos actions la démocratie dans nos pensées et dans Sénégal bi ñu bëgg mooy Sénégalu président Macky Sall bi nga xam ne dafay andi jàmm dafay def diplomatie une diplomatie ouverte une diplomatie d'influence une diplomatie économique bi nga xam ne ñun moo ñu andi les investissements directs étrangers bi nga xam ne moom mooy andi croissance moom mooy andi emploi moom mooy andi jàmm ci réew mi Sénégal bi ñu bëgg mooy Sénégal bu ubbeeku mooy Sénégal bu jox ñëpp tàllal ñëpp loxo kenn moomu ko te gis naa ko aussi ci sa discours nga ne un Sénégal sans exclusivité et un xaar ci nga xam ne ñoom ñooy jiite ñoom ñoo nekk ci li ci des nag wax naa la ko léegi ci tubaab dafa am ñoo xam ne démocratie ñoom ñoo ko moom mooy ñi nga xam ne dañu nekk ay acteurs tolérants dañuy jàpp ne ñoom seen dëgg bi ñu yor sax peut-être que keneen ki moom moo am dëgg waaye tey li ñu fi gis mooy ku jàpp mbir téye ko da ngay jàpp ne yow rek yaa am dëgg keneen amul dëgg ku màtt dara faaw mu dagg ku taxaw ne man fii laa bokk kële ne fële laa bokk ñuy féewaloo Sénégal bu mel noonu tiital nañu mais Sénégal boo xam ne aussi ay acteurs politiques yoo xam ne dañ ci ñëw wàlle si bokk si indaale fitna indaale populisme indaale division indaale déclin indaale chaos Sénégal boobu monsieur le premier ministre dama bëgg ngeen jóg si nu mu gën a gaawe parce que ñun xalaatuñu ay ay échéance xalaatuñu ay mandat ñun li ñu bëgg mooy Sénégal bu ñuy tabax di ko construire te ñun ay acteurs politiques lañu dañu war a bàyyi suñu empreinte fii suba ba nga xam ne Sénégal bi ñu fi bàyyi bàyyil ko fi suñuy doom bàyyil ko fi suñuy sët Sénégal lu jàmm bi ñu doon nañ ci Abdou Diouf Sénégal lu jàmm bi ñu doon ci président Abdoulaye Wade Sénégal mu ngi am ndox autorité yaa ngi bomaxu jut yaa ngi dem ci yoon bi kon nag li ci des mooy ñun ñu ànd ak président Macky Sall sans compromission ñu a ànd ak moom dëggal li mu wax dans le cadre du plan Sénégal émergent ànd ak moom gunge ko ci li nga xam ne mooy construire le Sénégal construire la République consolider notre démocratie andi jàmm ak salaam loolu mooy sunu wax loolu lañ lay dalale ñu ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal yàlla la yàlla jàppale jërë ngeen la liste des